sëriñ moodu jigal sëriñ moodu jigal mi ngi gane àdduna ci njigal ndaqaar mi ngi ci arrondissement bi di ndindi buggul ci région de Diourbel sëriñ du jigal doom la ci soxna faati silla ak sëriñ muhammadu mujjibu jigal ki seexul xaddim daa wooye mujjibu sëriñ muhammadu jigal bi matee dal lii di alxuraanul karim ci ëttu waajuram wow di sëriñ muhammadu jigal mujjibu fala dale lii di alxuraanul karim ba mokkal lii di alxuraanul karim ndax dëkk boobu mu cosaan daanu di njigal daqaar ku fa yeewoo lii di kàng fóori nga kon moom ci dëkkub kàng fóori la jànge lii di alxuraan kon fu mu jaar nekk lii di kàng fóori ndigal daqaar googu sëriñ du jigal jànge lii di alxuraanul karim ci ëttu waajuramam wi ca jamono joojo lu tollook ñeen fukki kàng ak ñaar yu mokkal alxuraanul karim ñi nga yeewoo ci dëkk boobu di ndigal daqaar kon dëkkub alxuraanul karim la woon te dëkkub kàng la woon itim moo tax ci ëttu waajuram boobu la jàng jànge alxuraan ba géejoo fa foofu ci njigal ndaqaar sëriñ moodu jigal am na ñu mbokkal waajur wu jigéen di soxna faati silla mi ñu koy wax sëriñ moor jeng ak moodu moxtaar jeng moodu moxtaar jeng mii sax ci guerre mondiale 14 18 bokk na ci soldaar yiñ tànnoon ngir ñu dem fa am na kaneen ku ñuy wax sëriñ abdu jeng ak moom sëriñ moodu jigal mi kon ñett la bokkal soxna Fat Silla mi ak moom muy ñeenti doomu aadama sëriñ Modou Jigal nag ginnaaw am njàngam waajuram wii di sëriñ Mouhamadou Jigal mu jiibu da koo jëloon jox ko sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim kon foofu la gën a géejoo ci wàllum njàng ma wax leen nag sëriñ Modou Jigal mi nu mu def ba giseek sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim ndax baayam bii di sëriñ Mouhamadou Jigal mu jiibu wala réew Maam Moor Anta Sali Mbàkke la ba tax na ñoom ñaar daanañ seeteen jàppante maam Mor Anta Sali Mbàkke ñëw na ay yoon ndigal ndaxaar gi ànd faak sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim di seet si wólle réew yi di sëriñ Muhammadu Jigal sëriñ Muhammadu Jigal itim ñëw na ay yoon Mbàkke Kajoor wala fu maam Mor Sali nekk ngir di seet si maam Mor Anta Sali ndax wólle réew wi mu doon ci xamante googu wóllëre googu ñaari waajur yi séqoon ba tax sëriñ Muhammadu Jigal mii di waajuru sëriñ Moodu Jigal su masaa ñëw Mbàkke Kajoor di seet si wólle réew wi Mamor Anta Sali Mbàkke lu ci ëpp ci yi kii di seexul xaddiim la ko Mamor Anta Sali Mbàkke daa bàyyee taxoon na nag kii di sëriñ Muhammadu Jigal Mujiibu mi bàyyi na xel bu baax a baax gone gii di sëriñ Tuubaa seexul xaddiim ndax booba nag seexul xaddiim du mag ci mu am bis ci atam yi mujj moom sëriñ Muhammadu Jigal Mujiibu bi ginnaaw bu mu ñëwee Mbàkke Kajoor seet si Mamor Anta Sali ba dem nag tokkoorum ñaabi bi mu amoon ci ndigal Daqaar gi la dem daal defar ca ñàmbi ju am solo ñëw yit ko seexul xaddiim di ko def nag ay yooni yooni yoon ba am na bi sax dafa yóbbante ci seexul xaddiim di ko wax ne xam naa na li ma dese ci kaw suuf daal bareetut waaye doy nga ma te dénk naa la lii di sama bopp ca dénkaane booba sax ak lettre boobe mu bindoon seexul xaddiim ngir di ko sàmmloo ëllëgam taxoon na seexul xaddiim def ci moom ay way di jëmm jooju di sëriñ muhammadu jigal mu jiibu mii ca booba itam la ko joxaale ne taawam bi di sëriñ du jigal kon lii moo indi sëriñ du jigal ci atub seexul xaddiim ginnaaw bu waajuram demee ba xam ne nag mënatul ci wàllu at ndaxuk tële la jël nag doomam jii di sëriñ du jigal jox ko kii di sëriñ tuubaa seexul xaddiim ndax su manoon moom mooy ñëw nekk fi di liggéeyal seexul xaddiim kon lii moo indi sëriñ moodu jigal mi ëttub sëriñ tuuba seexul xaddiim waajuróom wii di sëriñ muhammadu jigal mu jiibu keroog bi mu làqoo sëriñ tuuba seexul xaddiim maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru la yónni ne ko demal taxawul ma kii di sëriñ muhammadu jigal mu jiibu mii bi maam ceerno ibrahima faati di dem laata mu egg dajee naag ñi yëgal ci seexul xaddiim ne ko sëriñ muhammadu jigal mu jiibu mii génn na àdduna maam na wax leen na leen seexul xaddiim moo ma ngir ma taxawoo ci kaw Ceerno Ibrahima faati mbakke ndaamal daaru mi indi ba nëgëni ca ndaa lañ ko defoon di ca naan aka barkeelu ba tey jii may waxee yéen ku dem njigal naan ca saafara soosee nga xam ni keroog ba sëriñ Muhammadu jigal mu jiibu mi làqoo la ko seexul xaddim joxoon njaboot gi ñu teewlu ndinkaan bi sëriñ Tuubaa seexul xaddim def ci sëriñ Muhammadu jigal mi ñu daa wooye ma jiibu jigal mi waajuru sëriñ Moodu jigal mi ñuy waxtaane tey jii haadihi wasiyatun li baadi awwali man aamana wa aslama min alkibaar man jibu jigal jaalahu llahu wa taala min al axyaar alhamdulillahi له والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فإني رأيت هديتك أيها الأخ الصالح والمريد النافع فهاك هذه الأبيات واستعمل بها تفوز يا أيها المريد كن متبعا سنة خير الخلق لا تبتدعا فالخير كله مع اتباعي والشر كله مع ابتداعي ولا تكن مخالط البرايا إن كنت مستغن إلى المزايا walaasi min oslata wa tafakkura wa sikra wa salaata wa yooyu ngeen doon dégg te tukkee ci sëriñ tubaa seexul xaddim te doon ñëw ci waajuru sëriñ moo du jigal ngir dénk gum ko dénkoon boppam ngir bu ëllëgee bu fi nekkatul mu xam ne moom lay yaakaar ca suñu boroom tontu boobu ko seexul xaddim doon tontu te jaarale ko ciy way ak di ko santaale ci bernde gim ko daa defal laataa mu koy wax boppam moom lañ leen doon dëkkal noonu sëriñ moodu jigal ginnaaw bu ko waajur waajuram wi jébbalee sëriñ tuuba seexul xaddim ci mbàkke kajoor bi sëriñ tuuba seexul xaddim jógee mbàkke kajoor di ñëw mbàkke bawal ngir sañc si dëkk bi di daaru salaam àndoon nag kii di sëriñ moo moodu jigal ca mbooloo mooma ginnaaw bi itim ànd naag moom ci dëkk bu sell bii di tuuba dëkk boobu di tuuba sax la sëriñ tuuba seexul xaddim jëlee kii di sëriñ moo moodu jigal jox ko seexam biñ tudde cheikh mandumbe mbàkke ngir mu tarbiye ko bi sëriñ tuuba seexul xaddim di dem ci Moodu Jigal mi ngi ci loxoy sëriñ Mandumbe Mbàkke ci dëkk bi ñuy wax Kër Magéey Ndaw foofu la nekkoon ak sëriñ Mandumbe Mbàkke foofu sax la ko seex Mandumbe Mbàkke joxe lii di ngërëmam moom sëriñ Moodu Jigal laata seexul xaddiim di ko jox ngërëmul boppam lii di sëriñ Moodu Jigal bi ko seex Mandumbe Mbàkke gërëmee ci dëkk boobu di Kër ma Magéey Ndaw ñetti taalibe yi ku fa njëkk a fekk jaayanteeg moom foofa lañ ko fekk ci dëkk boobu di Kër ma Magéey Ndaw muy sëriñ Ibrahima Géey sëriñ Moodu Gajaga ak sëriñ Daam Jóob mooy ñetti taalibe yi njëkk a jaayanteeg kii di sëriñ Modou Jigal ginnaaw bu ko seex Mandumbe xabaan gërëmee bi ko seex Mandumbe gërëmee te boobu seexul xaddim nekk ci biir tukki bi ci géej gi kii di sëriñ Modou Jigal nag dafa ñibbisi ci dëkkub maamam bi wala dëkkub waajuram bi ñu tudde Mérina Ndigal ñëw nag toog fa di xaar sëriñ Touba seexul xaddim bi sëriñ Touba seexul xaddim ñibbisee ci le 11 novembre 1902 def na comme ni ko seex sépp defee ñëw ziyaare si ku baax te sëriñ Touba seexul xaddim ginnaaw bi weer sëriñ tuuba seexul xadim amaat takk-takk ak lii di mbaaxaan tubaab bi duggaat ci ñu yóbbu ko ci réew mii di gànnaar gànnaar googu sax kii di sëriñ du jigal fekki na fa sëriñ tuuba seexul xadim ngir ziyaare ji ko waaye ba mu demee toogu fa daa daa di ñibbi ginnaaw bu ko sëriñ tuuba yeewee foofu ci gànnaar bi muy dem gànnaar mi ngi àndoon ak ku ñuy wax sëriñ moor jëng ak ku ñuy wax sëriñ abdu xaadir jigal ñaar ñi la àndaloon ci gànnaar ziyaare ji sëriñ tuuba seexul xadim ak sëriñ tubaa seexul xaddim jógee gànnaar ñëw nekk ca yéen ci résidence surveillée kii di sëriñ moodu jigal demaan na ca yéen jolof fekki fa sëriñ tuubaa seexul xaddim dem na fa sax ay yooni yoon waaye am na ci yoon woo xam ne ni bi muy dem ca yéen jolof di seeti sëriñ tuubaa seexul xaddim ci dëkkam bii mu sancaloon boppam ci ndigalul sëriñ tuubaa seexul xaddim fa la jóge ñu koy wax daaru muhin ñu gën koo xam ci ndigal siñaa ñaa jaat keroog bi mu jógee ci dëkk boobu di dem ku ñuy wax sëriñ Alioune jigal la àndaloon ca yéen jolof ndax ci yoon wi la mujj des sëriñ moo moodu jigal bennub dëkk nag la sanc muy dëkk bi ñu tuddee daaru muhin ñu gën koo xam ci ndigal si ñaa jaat dëkkam bii sax bayal na fi sëriñ tubaa seexul xaddiim lu takku ci lii di dugub ñu xayma ko ci ay sàq ñeen fukki sàqi ñeent moom la daa jébbal at mu jot sëriñ tuubaa seexul xaddiim boole ko sàq mu ne benn dërëmu du la koy booleel bi sëriñ tubaa seexul xaddiim jógee ca yéen jolof dem ci dëkk njaareem di ko ziyaare ji ba foofu sax ci njaareem sëriñ tuubaa seexul xat di wutaloon na ko fi kër kër gi mu ngi tolloo kër sëriñ moor mbay siise foofu sax ba nëga ni lenn ci njabootu sëriñ moodu jigal gi ña nga fa sëriñ moodu jigal nekkoon na ku am barke ku teeloon na jekku lii di àddunaam lii di jumaay njaareem ji ci atum bi biñ koy liggéey lii di mool yi mu mooloon ci këram di ay tuwil tuwil yooyu sax moom lañ mujjoon jël tàmbalee ko lii di jumaay njaareem gi njëkk a dem ci jumaay njaareem ji moo li moo du jigal la ndax ci kër googu dend kër sëriñ moor mbay siise la naroon a tabax mool yooyu lañ mujj jël indi ko ci jumaay njaareem ji sëriñ moo du jigal lii di gaali sëriñ tuuba seexul xaddim daa jëfandikoo itim lu ci ëpp sëriñ moo du jigal mii moo ko jënd ci dëkk bii di ngaay ku ñuy wax sëriñ moor faatim jóob moo ko ko daa jaay sëriñ moo du jigal daana def at mu jot mu jëndal juróom ñaari gaal sëriñ tuuba sëriñ Touba Seexul Xaddim daa jëfandikoo sëriñ Muudu Jigal mii moo ko jënd ci dëkk bii di Ngaay ci ko ñuy wax sëriñ Moor faatim Jóob moo ko ko daa jaay ci dëkk boobu di Ngaay sëriñ Muudu Jigal topp nag ci ginnaaw sëriñ Touba Seexul Xaddim lépp loo xam ne nii sëriñ Touba Seexul Xaddim bëgg na ko su ko yëgee def ca la mu man boole ko nag di liggéey di ko jox ba ni sëriñ Touba Seexul Xaddim génnee àdduna ci le 19 juillet 1927 sëñ Moodu Jigal nag mel ne lu waaru ci kaw jamono mel na itam nag lu yéemu ci àdduna bam def ko al ci aal jooje sax la jële feebar bu ko génnee ci àdduna bi ci njaareem googu mu nekkoon ci këram gi ko seexul xaddim dëloon mu nekk ci wetu kër sëriñ moor Mbay Siise ndax jamono jii may waxe yéen lenn ci ay sëtam ma nga fa ci kër googu la génne àdduna moom sëriñ Moodu Jigal ci ginnaaw bu seexul xaddim làqoo demuk seexul xaddim nga def ko lii di aal aal jooju sax moo ko mujj yóbbee lii di génnuk àdduna laata muy nag boppam wax ne soxlaatu dara ci kaw àdduna ndax seexul xaddiim nekkutu fi képp koo xam ne ni yaakaar nga ko demal fekki seex moodu mustapha mbàkke rawatina ak doomam mu jébbal leen seex moodu mustapha mbàkke ñetti weer ginnaaw bu seexul xaddiim demee la dem fekki ko barsàq sëriñ moodu jigal mi génn àdduna bisub altene juróomi fan ci rakkaat ji gàmmu ci atum 1346 ci gàddaay gi altene juróomi fan ci rakkaat ji gàmmu ci atum ci gàddaay gi dëppoog muy lundi 31 octobre 1927 lundi 31 octobre 1927 ci dëkk boobu di njaareem ñu jël ko indi ko ci dëkk bu sell bii di Touba ci xilaaf ak Cheikh Mouhamadul Moustapha Mbacké keroog bi sëriñ Touba Seexul Xaddim làqu ci le 19 juillet 1927 sëriñ Moodu Jigal dafa wax ne maanaam bennub dëkk wala am réew mu Seexul Xaddim nekkul di dox moom di defatu fa dara ci misaal daal fu seexul xaddiim nekkutut wala moom daal rus nay dox ci kaw suuf soo xam ne ni daal seexul xaddiim ma nga ca suuf sa moo tax mu ne woon day dem daa di miraas boppam laata muy làqu mu ne njabootam gépp nañ dem jokku ci ginnaaw cheikh du mustapha mbàkke moo xam ay doom la moo xam lii di taalibe yi kon bi seexul xaddiim làqoo al jooju moo ko dugg ñetti weer lañ ca teg kii di sëriñ Moodu Jigal génn àdduna ci njaareem kon mën nañu wax ne ginnaaw làquk seexul xaddiim moo waral làquk sëriñ du Jigal mi ñuy waxtaane tey ji sëriñ Muhammadu Jigal ay xalifaam nii la tëdde ki mu duppee sëriñ Tuubaa seexul xaddiim di sëriñ xaadim Rasuul Jigal moo ko njëkk a wuutu ci atum 1927 ba atum 1995 sëriñ xaadim Rasuul Jigal mi njëkk a wuutu waajuróom wa di sëriñ du Jigal wuutu na ko ci diirub juróom benn fukki at ak juróom ñett toog toogaayu sëriñ Modou Djiguel ñu di ko xoole kii di sëriñ du Djiguel muy 1927 ba 1995 moo toog xilaaf ak waajuram di sëriñ Mouhamadou jigal ñaareelu xalifaam mooy ku ñuy wax sëriñ Mahmoud Djiguel moo fi nekk 1995 ba nëgëni ñu koy ñaanal bu baax a baax mu sut waajuram wa aw fan ak magam ji mu wuutu ci toogaayu sëriñ Modou Djiguel doomu soxna Fat Silla ja ak kii di sëriñ Mouhamadou Ahmadu Mujibu Jigal te Serigne Touba Seexul Xadim daa ko wooye Mujibu Jigal ñu koy wax Serigne Modou Jigal am na nag bis buñ koy fàttaliku ginnaawam ñu ko daa fàttaliku ci juróomi fan ci rakkaat ji gàmmu di bis bi mu génnee àdduna njabootam màggal nañ ko ay ati ati at ba ci xilaaf Touba Seex Salihu Mbàkke la am bis nag ci màggal gu ñu def ba pare dem ziyaara ji Serigne Touba Seex Salihu Mbàkke mu leen di wax ne Serigne Modou Jigal dama am yéene lool jàpp ci bisam xalaatam bi am yéene lool ci jëmm ju tedd jooju waaye bis bi ngeen koy fàttaliku di juróomi fan ci rakkaat ji gàmmu bis boobu daal mënuma caa yëngu bu ma sañoon nag ngeen toxal ko yóbbu ko ci bis bi ñuy màggal kazu rajab muy ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru rajab boobu kon bis bi ñuy fàttaliku léegi sëñ du Jigal ci bis boobu la am na beneen bis bu buñ koy fàttaliku muy ñetti fan ci weeru tabaski bis boobu ña ngi koy amale ci dëkk bële di Taïf Mbàkke di kër Cheikh Moodu Moustapha ndax la njabootam yaakaar daayira bi bootu ca kër ga ñu koy wax daayira ansaaru seex muhammadu jigal ñoom ñooy amal lii di màggal googu ci taayifu mbàkke ñuy ñaan ci darajey njabootam ak i sëtam ak i taalibeem ci darajey liggéeykatu seexul xadim ba yàll nañu ko yàlla fayal te taas ñu ci barkeem te may njabootam fan wu gudd ak gi yaram te def ci kër googu barke ci darajey muhammadu jigal amiin muhammadu jigal